dernière question. waaw. ngeen majorité présidentielle am ngeen candidat. waaw à la personne de Amadou Ba. waaw président Macky Sall réaffirmé na ko sa confiance en tant que premier ministre. moom mu loolu laa loolu laa lire ci journaux yi moom mu looloo am sax moom mu réaffirmé ko sa loyauté. Mm. waa léegi mm. dañuy tëggaat seen candidat bu maintenir bu bu jafe mais lan la. xamuma mais da am fi tontu. xamuma xam nga ba xam nga Maymuna ah diggante Macky ak Amadou. Hmm. nit ñi xamuma. defal ñu ci témoignage. Maimouna yi bi bi muy nommé lu Amadou directeur général des impôts projet bi dem na ñetti yoon conseil ñu rejeté ko ñu delloosi ko pardon rejeté ko kenn ki delloosi parce que boobu dañ doon wax ne dañu gis mbabi rek. ñu ne mbokkam la ko bëgg a def. te boobu démarquisation bi commencé na. Euh, Macky moo ko nommé ministre de l' économie ma koy nommé ministre de l' am na ñoo xam ne ci suñu camp dañ doon baax. di rey seen bopp di rey seen bopp président moo xam lu mu def parce que am na lu mu séq ak Amadou loo xam ne waxuma ko waxu la ko. te Amadou masu koo nettali te Macky mosu koo nettali mu mu jóge foofu mu def ko ministre des affaires étrangères mu jóge foofu mu def ko premier ministre bi mu koy def premier ministre am na lu mu waxante ñoom ñaar. Hmm. waaw lu ñu waxante. am na lu mu waxante ñoom ñaar mais lu ñu waxante. Euh, ba fii Macky dafa sàmmoonte kàddoom. moo tax ma jàpp ne euh, su ma doon conseiller Amadou dama koy wax mu topp ci Macky. mais c'est ce lu ko ki wax mu def ko. est-ce qu'il a posé un acte autre. lu Macky dogal lu Macky dogal mu ne ko lii la ànd naa ci. mais loolu la def. waaw. il a contresigné le le le le le waaw euh, su ma doon su ma doon moom dama ci boole déclaration. def na ko. déclaration laa wax. déclaration la. déclaration soutenir décision président. mais si euh, ku ku contresigné kay. soutenir c'est administratif. Hmm. mais il aurait pu le refuser hein. le compte à ah, déedéet. ah mënoon na ah, bañ démissionner. waaw déet man bëgguma sax dugg ci wute. c'est un supplément de responsabilité politique qu'on qu'on donne au premier ministre parce que le président n'est pas responsable par essence. déclaration c'est politique. le silence parfois waaye ba tey li may conclure ci wax jooju mooy Macky moo ko tànnoon Macky rek a ko mën a ñu mën a wax ñu dégg.